sëñ Galas. jërëjëf yaag délégation bi nga àndal. Mhm. di nuyu mbooleem chef de village bi ak délégué de yi nga xamante ne ñoo fi teew. Mhm. ak mboolem responsable yi nga xam ne àndoon nañu ci liggéey ñun ci liggéey bi. Mhm. di leen nuyu di leen dalal. di leen bëgg a xamal nag say sama taxawaay. fii ci Mbusoobe ndax ni ko sëñ ji li waxee Mbusoobe dëkk bu yàgg la fi jaar ci sëñ Mbàkke Bousso ba tey mu agsi suñuy loxo. ñu toog fi ngir fas yéene fee liggéeyal Serigne Touba ca njaboot gi fi nekk am ci ñun yaakaar lépp loo xam ne seen yitte la duñ ko des kenn ku dul man kon képp koo xam ne yaakaar naa ni loole mën naa koo jële foofa dinaa ko jële ndax damay wax ne ñun bokkuñu sëriñ si nga xam dañuy toog ni yàcc rek toog ci say pliaan déedéet ba jàng jotee dem nañ jàng ba liggéey jotee dem nañ liggéey parce que suñu borom a suturaal ma bëgg a xamal nag mbooloo mépp ni ni ki tey man Abo Bousso ak mboolem ku dëkk ci mbusoobe gii waxuma la sax ci mbusoobe waaye ba àgg ca Gédé ak fépp koo xam ni ab taalibe nekk na fa wala wóllëre wala xarit tey jii ànd nañ def wenn say fas yéene jàppale président Idriss Seck ginnaaw ci ginnaaw suñ mbokk mi bu ñu demee ci élection yi ñu jëm muy 24 février ñëpp nañu laxasaayu bis ni tey xëy na li ci des bëriwut waaye ñun ñëpp nañ laxasaayu doon wenn say fas yéene koo jàppale ba mu am ndam fii ci mbusoobe ndax kan mbusoobe juróom-ñeenti junniy kër ak lu tegal yaakaar naa population bi biñ ko mujjee xayma cinquante mille yu tegal ci boobu yàgg na fukki délégué quartier ak benn ñu liggéey fi liggéey bi yoo xam ne nag yàgg nañ ko ànd ak ay kilifa ñi ñu jàllal xarabuñ leen ñu ngi leen sant baax ndax lañ tollaloon def nañ ko waaye bis ni ki tey daal man maa jël sama engagement ak mbooleem njaboot gi nga xam ne ñoo ngi nekk ci Mboussobé jàppale président Idriss Seck ci ginnaaw sëñ Galas Kaltoum mi fas wu jël ndam li liggéey nañ fi liggéey boo xam ni liñ fi joxe ci ay carte ñëpp transféré wu nañ bëgg woote ci mbosoo bi bureau yaa ngi nii fii ci penc mi yaakaar naa def nañ fi juróom benn bureau de wat fii la suñu électeur gën a bari ak euh, ndaam ak daaru daaru marnaan ñi fi ñëwoon ca ñëw am lu ñu ma wax nee naa leen man lii sama yitte fi ne mooy fas yéene ñetti bureau yi nuñ ko gañee ba Idriss Seck gañee fi ca loolu dina am allah. kon daal sëñ Fallou na sa xel daal nga xam ne waa mbosoo bi yëpp ñu ngi sama ginnaaw. ma ànd ak nekk sa ginnaaw ñu fa yéene jàppale président Idriss Seck. ba dina am ndam incha allah. lu mel ni ay yoon ak am na fi. waaw yooyu bari na fi lool bari na fi ndax dëkk bi fii ñu dëkkee dafa nekk ci cat li ndax yaakaar naa nekk na hectares yi bari na dem na ba Daar Rahman ca Togoru Sëñ Cheikh ba foofu la yem ca foofa boo fa demee da fay fekk nit ñoo xam da ngay def ne sax dëkkuñu Touba daanaka dañuy rootaan ay robinet fontaine lañ fa def yoo xam ne dañuy génn ci mbedd yi amuñu ay kër amuñu ay robinet yu ñu roote loolu yitte la am na courant bi ñëw na fi yaakaar naa indi nañ fi treize hectares waaye doyut dëkk bi boo jëlee fii am na foo xam ni dara ci courant amu fa dafa la dem këris aw yoon amu fi diggante fii ba hôpital bi ni ko mut juuf mi waxee pour nga jël malade yóbbu ko sax da ngay jànkuwuteeg ay problème yu bare bare bare ndax ku ne xam ne yoonu suuf yi nga jël koo xam ni jigéen ju war a mucc ba toll ci yenn état bi nga teg ko ci oto fas yéene nangi nangi moom jëlee fee jaar ci suuf si kooku bu amoon benn jàngoro fukki jàngoro lay am ak juróom kon nag sëñ nga les loolu. Mhm. ñu ngi la ci yaakaar. te la ci tàllal loxo. soxla nañ fi courant soxla nañ fi ndox soxla nañ fi hôpital bii euh, poste de santé rek la te yaakaar naa suma ma juumul espace bi mate na ko ndax fa mu nekk ni réservé la bu yaatu boo xam ni buñ ko xaajoon ñeenti xaaj benn xaaj ba rek lañ jël def ci poste de santé ba donc kon la ci des. Mhm. bari na lool. ñuy am yaakaar nag de tàllal suñ loxo fas yéene président Idrissa Seck am ndam ñun daal amuñu jenn yitte ni ma koy waxee judul gox bi ndax lépp loo xam ne teraanga ju yàlla defal as gor defal nañu ko loolu ñu ci sant yàlla bu baax a baax kon daal liñ bëgg mooy ñun ñëpp nañ maase wu takk laxasaayu ñi jot seen i carte nañ ko téye bu baax a baax a baax a baax ñi nga xam ne jotaguñu seen i nañ dem jëli ko ndax kat yëf yi li ci am solo mooy dem woote ji mooy mbir mi nañ fas yéene ñetti bureau de vote yi nga xam ne moo fi nekk muy mbusoobe gii di ndaam di daaru rahman daaru sa daaru marnaan nga xam ni waa mbusoobe rek ñoo fa ëpp lu ñu fay wotee hmm. nañ fexe bureau yooyu moom bu ñu ko seq kenn hmm. bu ñu defee loolu mooy li nga xamante ni mooy mooy mooy prouvé li wax hmm. waaw kon daal ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm di ñaan suñu borom defal ñu ndam defal ko président di lay seewal xam ne jërë ngeen jëf asalaamaaleykum waaw loolu bëggoon naa koo leeral ndax man ni ma ko waxee nekkuma ci benn parti ba nga xamee ne 2012 ñëw na man maa jóg jël sama xaalis du xaalisu kenn du xaalisu ma sàmm du xaalisu ma dem def naa fi meeting boo xam ne maa ngi ko defee fii ci boulevard Gawane dépensé naa ci 3 millions quelque dërëmu kenn demu ci maa ko def ngir bëgg a libre bañ ca jógee kilifa yu bari ñëw na fi bokk na fi Youssou Ndour ñëw na fi Moustapha Cissé Lo ñëw na fi Mor Dieng mii tey di jàppale Idriss Seck ñëw na fi mboolem mën naa ne kilifa gu nekk ñëw na fi waaye booba man dama ko téyel sama bopp. biñ demee ba nga xamante ni loola weesu na ku ci nekk la nga ma waxoon it na ko waxee woon defuwoo ko noonu waaye man ma toog yàpp biñ demee ba ci euh, nuñ ko waxeeti référendum bi ministre Khadim Diop yabaloon yaakaar naa def nañ fi meeting bu xumb fi ci buun kër bi sa njiil lappe moo ko moo ko moo ko moo ko woon boobu it mbooloo mu bari lañ ci war a def def nañ ko bi nga xamante ni bii fi mujj mooy législatif yi sëñ Abdou Lahad Gaynde ma ñëw na fi ni sama mbokk ni sëñ bi waxe doone sama mbokk mu ñëw ñu waxtaan ma wax ko ni ko man jéen yitte rek laa am ca mooy ambulance moom mu defal ñu euh, euh, teraanga joojoo xam indil ñu ambulance ba wax dëgg yàlla ba léegi moo fi nekk di daw chauffeur baa ngi nii sama ginnaaw donc kon amuñu benn xaar ma yàlla wala kenn kenn waaye dafa am lu am ci yi nga xamante moo fi nekk ndax dafa am ñoo xam ni dañoo dem ci barab joxe fa sama tur def ab comité ni ma sëñ boobu mooy président euh, d'honneur léegi ba am na coow yi bari na ci lool. ca man yëguma tinuma ba am nañu ci dekki si xaar yaakaar naa bu fekkee ab comité dañ koo teg mu ay secrétaire am ay trésorier am lu nekk président ba mënuñu ci dekkee sa xaalis ci xamu ko ci am na ay millions yu dugal ci dëkk bi ma bëgg a xamal ñëpp ni man nekkuma ci APR tey nekkuma ci ñoom ëllëg du ma nekk ci ñoom ginnaaw ëllëg li nga xam ne mooy sama yéene ñu gàññi leen Mbusoobe gàññi leen Ndaam gàññi leen fépp ci Tuubaa loolu mooy sama yitte foo xam ne fépp foo xam ne taxaw nañ fa ni sëñ Abo ànd naa ñoom dinañ fa taxaw weddi ko na leer ci bopp ñëpp man daal président Idrissa Seck laay jàpp ci ginnaaw sëñ fàll mii loolu point final. waaw sëriñ Abo Bousso xalifa sëriñ Thierno Bousso fii ci Mbousso bi.